Assalamualaikum. mbokk ñu tàmm ñu topp seen site internet murid point info ñoo dellu si waat seen page spéciale bi nga xam ne moom lañ jagleel campagne électorale bi nga xam ne référendum du 20 mars 2016 comme nañ ko tàmmee di defee fan yëpp tey ñoo ngi ñëw seet si Serigne Mbacké Mara di président association sans frontières bi nga xam ne moo nekk Touba di fi yëngu ci yëngu yu am solo tey ñu ñëw seet si ko ngir siq ak moom waxtaan ngir mu jàngatal ñu ñaari points yi nga xam ne que moo ci biir référendum bi muy waaw bi ak dette bi ñu bëgg a xam lan mooy avantage yi ak lan mooy inconvénients yi ndax ëllëg lan la war a mën a jural gouvernement du Sénégal kon duñ def loolu jox kàddu gi sëriñ bi mu nuyoo ñoom si dugg si waxtaan bi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu euh, mbokki taalibe yi mbokki jullit yi euh, mbokki euh, waa Sénégal mbokki diaspora bi ñoo ngi leen di nuy di leen ziar. di ñaan itam yàlla ci kattanam li ñuy wax itam mu dimbali nu ba ngeen déggee ko ci déggin wu wu rafet njortu Euh, euh, euh, loolu daal lañ ci amul lu ñuy wax. jërëjëf sëriñ bi ginnaaw bi nga nuyoo dañuy ñu dugg soobu ci waxtaan wi ñu bëggoon nga jàngatal ñu wii bi yan lan mooy avantage yi bu xamee bu ngoonu 20 mars bu wii bi jëlee ndam li lan mooy njariñ li ci état Sénégal ak yan jàng tamit la ci état Sénégal mën a jël comme conséquence ci ci wii bi. waa xam nga njàngat li mooy man ni ma ko jàngate ak ñu bari niñ ko jàngate dafa bokkul. ndax ma ni ma ko jàngatee mooy peut xëy na président Macky Sall bëgg na woy bi jàll eh, bien sûr parce que loolu question d'orgueil la eh, eh, mais dama jàpp ne moom euh, woy bi jàll ci sama jàngatu bopp loolu nag luy bett ñu bari la mais damaa jàppoon ne noo bi jàll sax moo gën ci moom woy bi jàll. loolu nag su ma ko waxee dana xaw a jaaxal ndax président de la république di wër di wote di woteel nit ñi ñu ne di woy nga ne su woy bi jàllee noo bi jàll moo ko gën ci moom xam nga loolu lu compliqué la. li tax ma wax ko itam fi ma ko teg fenn dong la su fekkee par exemple wuy bi jàll na dana dana euh, orgueilam dana ko dana ko dana ko défendre euh, euh, constitution bi dana jàll 5 ans yi nangam ak nangam ak nangam mais wuy bi dafay am conséquence parce que wuy bi su jàllee moom ci boppam mer mer su fekkee mer laa ko mën a tuddee wala engouement bi nekk ci doomu aadama yi nga xam ne dañoo bëgg noo bi jàll engouement boobu du du du du jeex dafay continuer fan la jëm ci législative yi te su ko su ci deful attention bu baax a baax liggéeyaat ci su boobaa législative yi mën nañ ko yóbbu minoritaire au niveau de l' ensemble national te su boobaa du baax ci président de la république. Euh, jërëjëf ci leeral yi sëriñ bi duñ def lu dugg gën a dugg ci waxtaan wi ndax seetlu nañ démb ak bërki démb coow li nga xam ne que ñi nga xam ne que des partisans du wii lañ ñi ngi koy semé ci biir dëkk bu sell bii di Touba en tant que acteur de développement bi nga xam ne yaa ngi nekk Touba di jàppale askan wi ngir leen suqali yow ndax ànd nga ci loolu. ak ak lan ban message nga leen war a jox. man je ne dirais pas les partisans de oui. je dirais tout simplement tous les partisans parce que du Wuy bi rek mooy semer euh, désordre mais non bi mi ngi semer désordre oui, bi mi ngi semer mi ngi mi ngi semer désordre waaye nag damay dellu si waat wax la ne la wax naa la la conséquence oui, bi mais dama lay wax aussi avantage non, noo bi jàll ci parce que non bi tey su jàlloon ci moom dafay daal di am euh, euh, globalement Sénégal da fay am zone yi nga xamné ne nañ woy yépp am zone yi nga xamné ne nañ nooy yépp su boba day sûrement que orienter euh, action gouvernementale bi ci ci ci ci résultat yi te te nag loolu gis na su ko défé ndax day tax mu yok gor góorgóorlu su yokkee gor euh, li euh limi ñëk def moy fi nga xamné fi lañ ñu wate wuy moom bien sûr dana leen consulter parce que day xamné ay nitam lañ fi nga xamné aussi danger bi dañoo wate non su leen mënta consulter itam leader ya fa nek te am maanaa dana leen débouché te loolu mën na koo may mu gañewaat deuxième tour pour am sept ans donc man foofu laa analyser léegi li ci des itam mooy Touba moom képp ku ko bëgg a gañe benn nenn rek nga ko mën a gañe muy def la politique social ak ku mën a doon mais Touba ku fi deful politique sociale pour ko gañe ko du yomb ndax dafa bari ay néew ji doole yu fi nekk gis nga sëriñ ci man je suis très d'accord ñu defal leen lu ne nañ leen ko defal parce que ci lañ bokk nag ndax su fekkee ministre dafay am salaire am oto. am gasoil suy daw am escorte am lépp am lépp am lépp c'est parce que liggéey bi ñu koy liggéey loo moo tax mu di ko def mais sëriñ bi itam dafa am ñu nekk ci ginnaawam donc gis na sëriñ lu ñu leen mën a jox man xeeb naa ko waaye soo joxee sëriñ bi ba pare nag néew ji doole yi nekk nanga nekk ci dëkk bi nag na nga leen viser te soo leen di viser nag nga fexe ba viser leen yow directement yow ndax bari na lu ñu fiy séddale lu yoo xam ne nii euh, du àgg fa mu war a àgg te gis nga néew ji doole yi nag ala kulli haal lu ci bari nag ñoom ñooy dem ci urne yi de kii dem ci urne bi nag da ngay fexe ba su demee ci urne bi xolom sedd ci yow bala agsi ci urne bi donc dama yaakaar ne Touba moom li koy gañe mooy politique sociale. jërëjëf ndax man nga ñoo dikkal ci conséquence su non bi lan la mën a jural Macky Sall ëllëg ci biir Sénégal ci rawatina élection législative yi ñu jëm en 2017 te comme niñ ko xamee élection présidentielle mi ngi ñëw en 2019. waaw mooy ni ma ko waxee rek euh, non bi moom dana ko tax mu gën a góorgóorlu dana tax itam mu mu mu mu def ay ciblage ciblage yooyu mu koy jox moo koy gañaloo moo koy moo koy moo koy gañaloo euh, peut-être euh, deuxième euh, deuxième mandat te deuxième mandat bul fàtte na sept ans la loolu man laa jàpp ne man personnellement Macky Sall ku ko wax ne ko wuy bi non bi moo gën ci yow dana ne xanaa kii dafa dof wala jina da koo jàpp mais man d'après samay analyse wuy bi moom question d'orgueil la mais non bi nag question d'intérêt la su fekkee nag orgueilleusement moom wuy bi man baax na mais su fekkee nag intérêt am la wala mu bëgg a réew mi moom noo bi moo gën ci moom ndax noo bi dana tax mu jàngaar réew mi xam réew mi fa mu toll foofu laa analyser man. jërëjëf sëriñ bi ci leeral yi kon nu ñu def lu dul euh, clôturer euh, interview bi nga jox ñu sa dernier mot. waaw sama dernier mooy mooy euh, quelque soit nu mën a doon rek man bëggoon naa ñi nga xam ne dañuy politique Touba di bàyyi xel dëkk bi parce que bari na lu fi xew loo xam ne nii su xewee ci dëkk bi niñ koy amplifier bokkut ak su ci beneen te moytu seytaane nag. parce que nag seytaane dugg na ci nit ñi nim mu ci nit ñi moy euh Touba dafa nek dëkk bo xamni ni amna lo xamni loo kenn waru ko fay dégg te ñi ngi commencé di ko fi dégg te suñ commencé di ko fi dégg nak man nay dem di dem dem ba jur lo xamni ni bokku tak ak ni ko sëñ bi bëggee donc dal ñoo ngi wax nit ñi ñu nek ci calme te te itam su jour élection ba joté nak kenn ku nek genn tranquillement dem voter ci so voter je ba paré na nga baña tok fa ngay voter di wax wala ngeen di fa regrouper wu soo fa defee kenn ku ne ñibbi sa euh, kër su démarché nag ca vingt heures ñu déglu résultat yi lu yàlla dogal ñëpp xam ne loolu la yàlla dogal la ñëpp accepté ko te itam nag ñu continuer ci liggéey bi yàlla nañu yàlla boole dimbali. jërëjëf sëriñ Mbacke Mara ñi ngi gërëm ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi doon topp seen site internet. murit point info ñu nekkaloon leen ci seen émission spéciale bi nga xam ne moom la ñuy def ci campagne électorale bu référendum 2016 ngi leen di jaajëfal daje ba beneen jërë ngeen